Heavyweights.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 neewu xale bi di tëmb nekk ci état de décomposition bu doy ci la ñu alerter sapeur pompier ñu woo police mu ñëw def constat mbiru xale boobu nag am na leneen lu ci bees gannaaw autopsie bi certificat de genre de mor bi li mu wane mooy xale bi defal lab ci amul woon benn lésion maanaam jàngoro moo tax xale yi dañ leen war di seetlu laa wax caytu di xam ci lu ñu nekk waaye léegi waajur yi kenn bëggatu cenn nekk ak sa doom minute xale bu ci egsi ne salaamaaleykum ñu ne ko accal laggal foo wi delloo seen buntu di nelaw walla taal tele di seetaan ay novelas walla di connecté wu wala sax génn ne may ba fa gone yi moo tax léegi xale yaa ngi mel ni ay kewel ci biiri àll boo xam ne gayndeeg bukki yee ko fees del moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax caay mim réew lim gi di gën a yokku kaa communautaire yi mel ni tulleeg màlli saa boo yeewoo dégg bakkan yuy root am na ñoo xam ni yëf yi tiitalu leen delloowul seen xel ci yàlla ma ne defu leen tus laa cay mim réew jàllo visil mii nag li mu def ëpp na ma ne jàllo visil ci ab centre de traitement bu jàngoro jii di corona nekk ca ancien hangar bu pèlerin ya ca aéroport bu Dakar la sàcc ab téléviseur eskay yoon mujj na koo teg loxo nag ba atte ko ca tribinal bu flagrant délit bu Dakar waaw góore opération bi nag Vigile Diallo moomu yoon nee na li mu ko doon toppee moo ko def condamné ko benn weeru kaso bu muy tëdd mooy li ma waxoon rek réew mi dafa mel ni jàngoroy sàcc ko dugg fu ne la ñuy sàccee ci jàkka yi ci jumaa yi ci église yi ci armeel yi ba ci kër sëriñ si la wax lu ñu jekku mu dem xefa xippi ñu ne ko tuŋaañ centre de traitement yi nag war nañ ko xoolaat ndax bu yàggul rek dégg nañ fi ab agent croix bu ñu ne daa violé ab xale bu jigéen ci ab centre de traitement Covid ñu nan deetawaay ñu déggati ci ab càcc réew mi defar ko yombul ndax fii daf ci am ñoo xam ni seen yëg-yëg yee sakk moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca yang-yang nag ca village buñ naan jaane nekk ca Linguère doy na war ma ne firange ngi bëgg tas famille saw ba fa nekk abdou saw di ab raxaskatu oto moo fa jàpp soxnaam bi di wuyoo ci awa jaxu dóor ko ba damm loxo bi ëpp naa def ma ne loxo bi double fracture la def li tax abdou saw def lu ni mel nag mooy dafa soupçonné jabaram jooju ak benn waay bu nekk ci village bi maar de taali waa ji di abdou saw nag nee na soxnaam soosu ba ay xaaju guddi dafay communiquer ay góor téléphone ci nopp nopp bi du fay waa ngeen defee ne nag li neex na ci xol nee na tamit waa ju mu soupçonné ne mooy yoxosu soxnaam soosu ci suuf gis na ay photom ci portabul portable jabaram ëpp talaw ay waay waay waay miim réew gannaaw bi Abdou Sow dooree soxnaam ba damm loxo bi nag évacué nañ ndaw si hôpital mu waroon a subir ay opération dóor yi métti na nag waa ji yoon mu jénn ko teg loxo de ba defeere ko pour cause de blessure volontaire waay waay jaru ko woon nag koo dem ba mënatoo àndal kay waa wàcc ko seeti moroomam mooy li wolof njaay waxoon lu feeñ ci ab sëy nuyoo woon ci ngoro gi dañ ko fayul waaye réew mi dangay gis kuy doxaan gel saa bu demee fekk fa angaaru faram ñu rang mel ni ñuy dugg cinéma mu xam ne kii muy seet si yemul mu gëm gëtëm xëy takk ko ba noppi naan da koy yemloo waay munul nekk waay moo tax ma ne jangoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca gudomp doy na waar ay samba booy ñoo attaqué groupe bu jeune bu nekkoon ci toll di 8 màdd torturé leen ñenn ñi ñu blessé leen gravement fukk ak juróom-ñeent yi ci jote SAP ñu nga ca hôpital bu Goudomp xale yooyu nee nañ bi ñuy SAP di daaw ci la ñu dajek ay jigéen yu nekkoon ci seen tooli ceeb di tànge jàpp leen ñoom it ñu fëx ba jigéen ñu bari blessé ci ñoom nee nañu ñaar fukk ak benn jeune ci xale yooyu nekkoon ci toolu màdd yi ba léegi kenn gisagu leen laaj bi samp nag mooy samba boy yooyu ay lan lañu moo tax ma ne jàngoro ci dal réew mi moo gën a graw korona naa la wax cay mim réew réew moo xam ni li ñuy lekk kenn du ko caytu caytu bu wóor fii rek ngay xëy gis taabal bu tege yàpp borom di jaay te doo xam fu ko jëlee ñuy xëy di damadaa di maafe yaa saaka dëxin yàpp woo xam ne kenn mënu la wax fu mu jógee moo tax lu ne la ñuy lekk kay dañuy lekk rek la xew ca yaraax doy na waar LGI ñoo doon def patrouille ba teg loxo waaju ñu naan Tiijaan Njaay di ab boucher li doy waar nag mooy ci frigo waajooju dañ cee fekk yàpp fas gu takku ëpp tëlaw may laaj nag Tiijaan Njaay boucher moom moomu fan la doon dugal yàpp wi mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz